waaye ñu ànd ak kii di Ndeye Assou nekk nekk fële ci Kayar def liggéey bu ama am solo euh, ci Sénégal mu mel ni gis nañ seen taxawaay yéen soxna yi seen jërundi soxna Bintu Mbacké tey boo ñu bëggoon wax secret bi nga xam ne yow Kayar gars yi ne nañ nga ko parce que foofu ñëpp Touba ci kanam la ñuy dundee nan nga def ba Kayar mokkee noonu soxna si. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu euh, taalibe yëpp euh, di ziar waa Touba ci kanam yëpp maa ngi leen di ziar di wax ne secret bi moom dafa yomb. parce que liggéeyal Serigne Touba ci boppam moo yomb bu ci kenn liggéey ba am ci ndam dafa ne yow la sa njàmbaar la wala sa lenn la sëñ bi moo defaral boppam ba pare. ndax Touba ci kanam tur dafa nekk loo xam ne moom nekk na ba pare Touba moom ala kulli day dem ca kanam kon ñun ñi ci nekk ñun ñooy bénéficié wu. parce que nekk ci Touba ca kanam moom leer na ne yow da jëm ci kanam loolu dafa nekk loo xamante ni day day day yomba liggéeyal parce que taalibe yi xam nañ mbiri Serigne Touba. da xam nañ ne lépp Serigne Touba kanam la jëm kon nag boo nekkee ci liggéeyu Serigne Touba moom euh, jàpp ci ak ñàkk cee jàpp yëpp dafay dem ci kanam loolu moo waral Touba ci kanam kayaar aussi di def ay moyens lépp loo xamante ni rek Touba ci kanam woote na ko waa Kayar dinañ ca góorgóorlu li nga xamante ni moom la ñu mën euh, euh, soxla nañ nag tuuti jàppale ci kayaar parce que yàlla dogal na xëy na Touba ci kanam si man la jaaree dugg ci Kayar ma nekk jigéen tamit xëy na nekk ndaw Euh, dina xaw a diis tool nga nga dem ci yenn mag yi dugg dugal leen ci lenn li soxla woon nañ trop trop euh, Touba ci kanam gën a tegaat ci loxoom euh, Touba ci kanam kayaar ñu gën a jëm ci kanam di woo aussi ndaw ñi parce que Touba ci kanam dafa nekk continuité dafa nekk loo xamante ni du yem du jeex dafay ànd ak àdduna bi ba keroog muy buftadiwal kon dañ ci soxla ndaw ñi surtout ak jigéen ñi parce que ndaw ku ne xam na ne moom moo yeggale lépp lu mag tàmbali rek mag ndaw moo ko yeggale kon dañ ciy gën a woo jeunesse bi di ci woo tamit jigéen ñi ndax ku ne xam na ne jigéen moo gën a mën a yaatal jigéen moo gën a mën a yaatal lépp loo gis ci àdduna rek jigéen moo ko gën a mën a yaatal kon soxla nañ ci teewaayu jigéen ñi bu baax a baax a baax Touba ca kanam tamit nag dafa am ay commission yàlla dogal nag ñu bokk ci commission sociale commission sociale boobu tamit nekk commission boo xamante ni dafa am solo lool lool lool di liggéey liggéey bu rëy ci biir tubaa ci kanam nekk benn branche bu nekk ci biir Touba ci kanam moom tamit soxla yaatal soxla ndimbali comme yàlla nag dafa dogal ñu nekk commission sociale ànd tamit ak suñu njiit muy sëñ Moutada bu sëñ Abdou Fata moom tamit muy liggéey liggéey bu rafet ci tubaa ci kanam di ñu gën a soññ di ñu gën a may fit di ñu gën a may doole kon su ñu ñëwee fii war nañ wax loolu tamit fàttaliwaat ko kilifa yi ñu gën a gestu commission sociale ndax soxla na ko lool lool lool di woowaat encore rek jeunesse bi parce que Touba ci kanam day continuer dañ fiy jóge bàyyi fi suñu suñuy sët suñuy sëtaat kon jeunesse bi nañ gën a ñëw bokk si ci Touba ci kanam ñàkk a bokk ci Touba daal erreur la ci ab taalibe maa ngi ziyaar ñëpp jërëjëf soxna Ndeye Astou Wathie kon dégg nañ kàddoom yi mooy ñàkk a bokk ci Touba ci kanam daal du lu wóor kon ñu ñëpp nañ jéem a dugg ci liggéey bi